jox kàddu imaam Abdallah Sall nga xamante ne moo jóge Malika ak mbooleem ñi nga xamante ne ñoo nekk ca gox booba yebal délégation bu rëy ñu ànd ak suñu chef de quartier muy Papa Mayoro ak ñi mu ko àndal ñëpp kon imaam bismillah wa rahmatullah ñu wax inna alhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh wa nauzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihi llahu fahuwa almuhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa an la ilaha illa llah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu taala alayhi wa sallam mbokk yi fi teew di góor a jigéen ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu ci turu délégation bi nga xam ni ñoom lañu àndal délégation bi mooy fay di délégué de quartier Aïnou Mady 5 fële ci yëmbal noor moo nekk ci bopp bi ak Mor Sem bi nga xam ne bokk na ci notable yi gën yu mag ak Moussa Fall. ki nga xam ni entrepreneur la carrière bu rëy la ñu bari ci Sénégal xam nañ ko ak Ousseynou Faye bi nga xam ni doomu délégué la moo ñu conduire ci conduire yu rafet yi ak ñu ñu doxante yéen yàlla na ñu ñu wooyee imam cant bi maa ngi koy commencé ci suñu mag ju baax ji di Mamadou Kayre di paayu sëñ Talla Kayre moom la ñu dëkkoon foofa mu ànd ak ñun ànd bu rafet nekk di membre actif ci jàkka ja ak ci quartier ba di borom xel mu rafet dem na ba nga xam ne bi feebar bi méttee ba mu ñëw fii dafa ma téléphoné di ma laaj lan la lislaam wax ci par rapport man ak ni ma àndee sama waa kër dama loon dama bëggoon laaj la ndax mën naa leen jéggal ma ne ko déedéet xanaa am ku ñoom ku taxaw ni may ma sa baat waaye yow fi nga toll mënoo may kenn baat ndax da ngaa wéradi kon tànk kenn ci ñoom taxawu ni maye baat bul maye baat toogal muñ te xaar yàlla góor gëm yàlla ngoog ku gëm yàlla ngoog kon kayre sëñ taale kayre ak ñu mel ni moom ñu bokkal ndey ak baay wala ñu bokkal baay bu ñu melee nii ah jombul mën na nekk ba tax na ci turu délégation boobu ñu ngi leen di sant yéen waa dëkk bi ñu ngi leen di gërëm ndax ànd ba ñu àndoon ak kenn ci yéen muy sëñ bu mag boobee dem na ba nga xam ne këram dafa jël benn néeg spécial ni lépp lañ fi am ci luyaas nañ ko jox jàkka ji bi mu génnee àddina ba yàlla dafa ay doomam séddoo li mu fi bay woon yàlla def këram googee sëñ Talla Kayré faree ko mu continuer loole moom sëñ Talla Kairé fa tabaarakallaahu rafetal nañu mënuñu wax ci sëñ Talla lu sore waaye li ñu nemmee ko ci moom en tant que euh, ndongo daara gis naa ni ay xutbaam ay xawlan baliix la wax yoo xam ni day dugg ci xol buy ba ñaareel dina am ñu jooy lu tax mooy lu ma ko dafa dëggu ci moom man lu man ñetti yoon wala ñaar yoon wala ñeent son son son ñëw nañu ci man di ma attaqué naan taala ni muy di difay xutba na ko xaw a wàññi te alquran doog nag lox lox ak sunna xanaa nag alquran ak sunna dafa xaw a seer ndax bu jógee dëgg dëgg da yaakaar yow lay waxal ñu bari ñëw nañu ni ma waxal ci moom ni mu waxee na ko changé nangam ak nangam te alquran ak sunna dong lay waxanteel moom xam na man xam naa fa tabarakallahu ma ngi bokk ci imaamu jàkk ja moo Ousseynou Kayre mii dañoo am comportement boo xam ne bu xaw a yéemaane bu ñu ñëwee jàkk ji du ñu jéem a xëccoo palaasu imaam ñoom daal ci gannaaw la ñuy faree xanaa nga seen ñu leen kaay waaye du ñu jéem a sax ñëw ci kanam xool ko xooleen ko léegi ba ñu commencé conférence ba tey gisu leen mu jël kàddu bi ñu ko woowee ne ko dañ koy sarkaal dafay daanoo leer loolu mu wonee mooy boppam daf koo jox yàlla ba tax na man ku mel ni man dafa may xaw a parafe parce que moom dafa dafa yàlle bu ëpp dafa xaw yàlla bu mu ëpp yàlla yàlla baal ci baar boobu sax fa tabaarakallaahu ku yiw la ku tedd la amul benn këram ay jàkkaarloo jàkka ji waaye moom allah ko salaamaaleykum dellu na këram dugul ci ay coow dugul ci ay lijjën dugul ci dara loolu ci turu délégation bi ñoo ngi ko ciy sant ak taxaw bu mu taxaw xele yi ci dakaar ak fi moom ak soxnaam boobu ñu xam may mun a ak ñeneen ña nga xam ne xamuñu leen fa tabaarakallaahu ñu yiw lañu ñu bëgg lu ñu alquran ñu bëgg lu ñu diine man lu ma gën a frappé ci moom moom saa yu xutbeel mu néew mu gàtt dina ci dugal waa Palestine te waa Palestine ñun ñëpp la concerné même ku dul julli sax mbirum Palestine war na la concerné yan yàlla may leen ndam yan yàlla génn leen ci xat-xat bu ñu nekk yan yàlla génn waaye nag israil ala kulli ku ko xool commencé ko ci yontu yàlla Zakaria ba fii ñu toll seen diggante yu ba fii ñu toll ala kulli al noonu rek la ñu mën mel xool nañu def Zakaria xool nañu def Yaaya ak ñeneen ak ñeneen nak jëpp noonu lañu ñu war a mel kon fa tabaarakallaahu yàlla mi nga xam ni mooy teggi ndattu yal na yàlla teg leen nattu ñoom waa Palestine yal na yàlla may leen ndam bu ñu am seen réew comme ñëpp ala kulli haal yaa ustaas taala kayre ataala llahu umaraka wa ayyadaka wa nasaraka wa raaka yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam barkatul quran azim en ne kii mokkal nga alquran rawatina lu mu néew néew yashfa'una sab'an alfan min alfi min min ahlihi dana romb juróom-ñaar fukki junna ci ay mbokkam kon ñaar ñaata ñaata xale ñoo fi mokkal ak yeneen daara ci biir Sénégal kon mën naa Sénégal yëpp ak fanu Sénégal sax boo dañuy dugg aljanna même bu ñu duggul sab'una alfan min ahlihi loolu bari na trop fa tabarakallahu te ñun booba temps dañ daan jàng fukki at ak juróom fukki at ak ñaar ba ci ñaar fukki at nga soog a di mokkal alxuraan xo soog di am ijaaza waaye léegi ñetti at gis ngeen ñu ko commencé ay deux mille vingt deux mille vingt et ñuy mokk alquran loolu kéemaanu yàlla la loolu kéemaanu yàlla la kon fa tabaarakallaahu taxaw bu ngeen taxaw xele yi yéen ustaas yi ak saydaa yi ak ñeneen ñi leen di jàppale waaye jur yi di lamba seen poos di taxaw daara yi ala kulli loolu dañ koy noté loolu di yàlla gis na ko te yàlla du tooñ du ñàkk fay ku jëf kon yal na yàlla fay leen fa tabaarakallaahu ci turu délégation wu Aïnou Mady 5 muy benn baraat yal na yàlla taxaw leen. amiin kontaan nañ ci yéen. délégation bi nag bëggoon nañu lool mu ëpp fii mu nekk ay kaar wala kaar bu kaar bu fees. waaye xët-xëtu jamono. ak moyen moo tax ñu def nii ci turu mbooloo mépp tur jàkk jëpp ñëpp a ngi lay ndokkeel ñëpp a ngi lay ñaanal ñëpp a ngi lay sargal di ñaan ci yàlla yàlla na gën a avancé yàlla na gën a yokk jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa ila liqa waaleykum salaam wa rahmatullah jërëgeen jëf yàlla gis na lépp mbooloo mi am na maanaa li am solo rek mooy jëmm yi ñëw teewal nañ ñi ñëwul ñëpp seede yi yàlla dégg na ko yal na yàlla def ko ci misaanul xasanaat yi xam naa dañuy dem ci li des rek ci kàddu yi nga xamante ne ñoo mujj ñaari kàddu la muy kàddug daara ji laata kàddug daara ji kàddug imaamu ratib bu joxe kàddoom ba pare mu des kàddug daara ji bu ko defee xale yi ñaan ñu mën a jeexal li nga xamante ne moo des ci jataay bi kon dañuy jox imaam nga jige imaam jox ko ah. micro bi. imaamu ratib imaamu balaa imaam a jël ba tey ci délégation yi fi teew. ñi nga xamante ne ñooy waa Kër Madaro fa tabaarakallaahu kenn desu fa waa cawaare ñoom it ñëw nañu waaye it am nañ suñ mbokk sëriñ daara bu jóge fële ca bàmbay séeréer yor daara ju ñuy wax umul kitaab muy jegaan seen moom ñëw na ci li nga xamante ne mooy bés bi kon imam bismillah jegaanti na jegaanti asalaamaaleykum wa rahmatullah asubillahi rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli noo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di balwaaku ñëpp wax ji nag li ci ëppal solo mooy sant rek sant rek ndax dëkk bi ñi fi nekk ji ay mag ak ñu xaw a doon mag xam nañu ne bu ñuy bu ñu gimmee ci daara daaray alxuraan lañu gimmee ñeenti daaraa ngi woon ci dëkk bi loolee nag la yàlla di dundal ba léegi xëy na changement bi mooy nii ñuy jànge léegi waaye ñeenti daara yu mag ñu ngi woon ci biir dëkk bi dëkk bii kon euh, dekkal rekk a fi nekk dekkal dekkal bi nag dafa wuute ak nu jëkk na waaye nag alhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax di ñaan comme li euh, chef de village wax euh, ku mel ne nijaay Modou Kayré lépp lu waay di ñaan ci wàllu alxuraan ci dëkk bii ci jamono jii jiital ko ci baax na wala boo ko jiitalu ci nga teg ko ci ndax ña fi yoroon ay daara bu jëkk ñii ay nijaayam lañu ñii ay baayam ñi fi yoroon daara yu jëkk yi man mii sama baay ci la bokk xëy na xam-xam bi bariwut mokkaluma alxuraan waaye nag ku ma joxob kaamil ma jàng kon sant yàlla rekk la te fas naa maa ngi ñaan ci yàlla yit nag ñi di samay doom ñi ci ëpp ñu ngi jàng mokkal alxuraan nag du farata du farata liy farata mooy jullit bi na fexe ba xam ci lu mu jaamoo yàlla xam ay farataay julleem ak li mu koy defaree waaye du farata pour nga mokkal ko luy farata ji mooy na jullit bi xam ci alxuraan dara yàlla yàlla def nag daara ji na nga xam ne daara yu jëkk yi melan na fii ñu sansé ko ba mu agsi fii képp ku fi jànge yal na yàlla jox la xam-xam mokkal nga am mokkal alxuraan ñii nga xam ne ñoo koy taxaw yàlla dolli leen wér ak wërsëg ñi fi indi seen wërsëg yëpp yàlla dolli leen wërsëg dolli leen wér ndax nag lu mel ni eh, kenn mënu ko ñaar mënu ko taxawaay la rek ku nekk jàpp ci dëkk bi xëy na bariwul ñu fi am ge waaye nag lu ñu mën ñu ngi koy def bu ñu wootee ñu wuy si bu soxlaa ñu fekk si leen ah, loolu lañ man kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li wax nag alhamdulilahi rabbil alamin ah, dekkal la rek dekkal la ndax ñoom ñii di ay ustaas yii jamono yii ñuy jàng nun fii am na ci ñun booba judduwuñu kon nun ñii dañoo war a sant yàlla rek noo ngi fi toog di wax ba ba nëga ni ni wax nit ñi mën a dégg lu ñuy wax dara kon loolu sant naan ko yàlla bu waax a baax waaw alhamdulilah rabbil alamin noo ngi balwaaq ñëpp di jégg jéggalu ñëpp di ñaan yàlla daara ji ku fi jàng yàlla na la yàlla jox xam-xam ñi ko yor itam yàlla na yàlla dolli leen a jàppale ci kàttanu borom bi wasalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf imaam. yàlla yàlla nangu. ba tey oustaz Cheikh. waaw ci ñi fi teew bokk na ci ku ñu xam ku ñu ràññee ci daara muy oustaz Momar Diop bu Ceneba mi ngi nii toog moom it ci jataay bi. macha allah kon. jërëjëf continuel mën nga xam naa. waaye it ba tey it ñi nga xamante ne dañoo bañ siise siise yi jël li ñu yor yor ay téléphone doon nañ laaj numéro bi nga xamante ne mooy numéro Wave ñu mën cee dugal dara. muy numéro 77 486 95 93 77 486 95 93 kon képp koo xamante ne sa xaalis yaa ngi ko def ci sa téléphone ndax bañ siise siise yi jël ko mën ngaa jaar foofu ngir tàbbal li nga xamante ne mooy sa àddina tabaarkalla am na Wave am na Orange Money numéro boobu muy 77 486 95 93 alhamdulilah tabarakallah kon mi ngi noonu li ci des mooy kàdduk daara ji oustaz Thierno moo koy joxe waaye oustaz Makhtar yow mi jóge ci xaj binta ñu defal la ay seede ndax arab day wax na ida urifa sabab batala la ajab mbir mu man di doon boo xamee la ko waral dootoo yéemu lool na nga daan yéemoo boo xamul woon la ko waral man mi at ñi mel ni man ñu ñuy woowe tey ay ustaas ñu jàng ban ne dañuy jàngale ginnaaw yàlla ci loxob wayjur wii nga xam ne moom la imam doon tudd jóge Malika ci la jaar muy Baay Muudu Sooda Kayre ndax ginnaaw kóllëre gu yàgg gu amoon ca diggante man ña kilifa gu baax gu tedd gu dëkkoon kokki demu kokki ci ñu jóge kayre ci foofu la jaare paa kayre ni ko waa kayre gépp di woowee muy baay muuru sooda yàlla dafa def mu njëkk a jël ay xale yóbbu daara ja Oustaz Talla mi bokkoon ci waaye bu at mi dellusee rek day wër dëkk bi ci li ma xam man di laaj ba xam bëgg nga sa doom dem daara man li ma xam man sama jëmmi bopp keroog bi xale bi nga xamante ne moom la Oustaz Talla mu jaam ki mu ko tuddee mooy wayjuru maam As ak euh, Moussa Ndiaye mooy soxna Awa Fall keroog bi muy génn ci kër gi sama wayjur ñëw ne ma ndax bëgg ngaa dem fa ñoom taala keere nekk mooy kokki booba jamono jooju turu kokki day metti bopp mu laaj ma loolu ndax booba paakeere moom moo ko wax mu ñëw laajte ba xam am na ku mu bëgg mu dem bi ma ko laajee ma ne ko bëgg naa li tax ma ne bëgg naa booba alhamdulilahi sama wayjur bu jigéen dafa mas a toog mu ne ma benn jigéen rek laa xam ne dinaa ko ñee ci àdduna mooy ku doomam am xam-xam bu sama doom mu jël mu jël ma man mii ak ñeneen ñu dëkk ci dëkk bi baakeere jël ñu yóbbu kokki man ak cerno mii ñoo àndoon te cerno mooy doomam ci liñ mën a wax ndax nit ku baax du am doom waaye njaboot lay am déwén set daanaka mën nañoo wax dëkk bi kër yu baari kër gu ne nit jóge na fa presque dem kokki te ci loxoom boobu la jaar kon bu Oustaz Talla mi nekkee ci ñi mu njëkk jël yóbbu leen kokki mu jël dundam di ko jeexal ci alquran yal na ko ci yàlla kàttanal kon laa xar wa kon moo tax ma ne la Oustaz Makhtar bu ngeen toogee di waxtaan mu leen di yéem jarut mu leen di yéem ndax ida xorifa sabab batala la ajab kon ñu jox Oustaz Thierno mi nga xamante ne moo nekk di ko jàppale ci daara ji mu joxe kàddu yi nga xamante ne mooy kadduy daara ji moom itam ñoo bokk même situation ñoo bokk même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 alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin suma amma baad ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu taala julli ci sangu-sang yi muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp nuyoo ba gën mooy nuyoob lislaam wa huwa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leen tatagal di leen dalal ci ëttub daara yi Cheikh Ahmad Sakhir fii ci Kaïré waaye tatagal yooyu ak dalal yooyu ñu ngi koy def ci kàddu kilifa daara ji muy almudir Oustaz Talla Kaïré xol bi ak fiñ ko fekk ak liñ ko bette moo tax daanaka kàddu yi waaye xam naa ne lamu lamu ëmb ci cant wala la mu ëmb ci li mu war a wax nit ñi loolu man xaaju du ma mën a wax sax xaaj waaye daal dinaa jéem dinaa jéem ndax euh, bu ne ma woon euh, lu mu jafe-jafe bu ne ma woon tegal sa xol seeral sa loxo ci xal wi comme ni ko waxee wala duggal ci teen bi sax dinaa ci dugg parce que moo fi taxawee euh, sëñ bu baax boobu ñu doon wax léegi mooy sëriñ Modou Sow rek moo ko fi taxawe te teel na ko fee taxaw teel na koo taxawe nag maa ngi fàttaliku bi góor gi xawee tawat mën a tuta dem kokki macha allah jàmbaar la ci woon yoonu kokki moom bokk na ci yoon yi mu gënoon a bëgg waaye sëriñ euh, Modou Soda maanaam nit ñi ni ñuy daanoo ci yenn sëriñ yi ni ñuy daanoo ci tarixa bañ bokk moom ci kokki lay daanoo maanaam boo waxee lu jëm ci kokki mas nañoo ànd man ak moom mas ànd man ak moom ñu wàcc ci car bi ñu wàccee ci car bi emprunté bi daal di sama loxo ne ma Thierno Kairé mu ne ma foo xamee kii mu ne ko kii kokki la ne kon mokkal na alxuraan mu ne mokkal ba pare dina di nekk ci car rapide yi déedéet loolu mënta nekk naka la nit di jógee kokki di nekk mu ne ko déet ki kokki la jógee de xam naa dafa eh, mokkal na sax dafa mokkal rek ñibbeeg yooyu noonu maanaam moom dafa gëmoon ne nit bu jógee kokki rek maanaam yow waratoo warat waratoo nekk ku ndaw ku mag a mag nga war a nekk daraan amoon ab jëlli ci kokki bi mu demee ba tawat ba mën a tuta dem kokki eh, oustaz taala mi moo ñu fa fekk bi mu faraan ñëw fekk na daanaka ñëpp ñibbi nañ ñoom Abdou Ndiaye ñoom seex Kay rek fekk na Cheikh dem na Égypte fekk na Abdou Ndiaye ñibbi na ñëpp ñibbi nañ man kese maa fa nekkoon ak Moussa Mati waaye la sam papa la ma sam papa daan defal lépp te warlu ko ci moom moom da ko ko daan def li muy dem après sax bi ma fa jógee sax dégg naa ay tànkam kooke xaw naa wàññeeku waaye ñëw gëm fa daan ñëw rek mooy taxaw taxaw waajur bi ma jógee fii dem Égypte itam noonu la continué woon ak man ba bi ma jógee ñibbisi ku jàng ba pare ñibbisi ni ngay tumurankee bëgg liggéey doo ko am di tiit ndax man sama avenir fan la jëm ak yooyu booba la ma jël uuf ma maanaam fekk am naa soxna waaye samay soxnaak la war ca samay doom ak yépp mosuma cee xam dara lépp moom moo ko daan def man kooku taxaw na taxawaayu waajur bu ñu waxee dangaa danga sës ci moom te doo ko rek mooy ne du rakk sax waaye doom la yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla fay ko mébétam ci alxuraan ni xolam toll ci alxuraan yal na ko yàlla fay parce que kat dafa jaayante sëriñ Ibra Jaxate Lo fële ca kokki bu ñuy nettali mbiram sama xel ci taa oustaz taala mii lay dem dafa nekkoon ca bitig ba ca Sandaga waajuram man lool mu nekk mu nekk taawam nekk ca bitig bi di ko jàppale yore bitig ba yore xaalis lool waaye daal mu xëy benn bis rek takki bagaasam yépp dem kokki te boobakat fekk na dem na libi jàngi ba ñëw bañ jël ko ci gouvernement bi mu nekk professeur di jàngale arab waaye dafa dagg loolu lépp dem kokki ne day dem jàngale loolu muhaajara la jihaad nu mu tuddati hijra la mooy gàddaay comme ni ko yonente bi defee woon ak saxaaba yi bàyyi seen lépp gàddaay dem madinatul munawwar ngir yàlla ak bi moom noonu la defoon ku dem kokki léegi di nga xam ne moom lam defoon yéex na koo def sax lay wax bu booba waaye ustaas mi moom itam sama waajur bi mu nekkee dafa yor boulangerie bu mag fële ca Ndakaaru ñu dem ba jëmmi jamono boobu oustaz mi ngi alfalaax di jàng dëkk bi naqari boulangerie ba mel ni luy xaw a daanu ba ay bor yu bëri fekk ko ca mu dem jëli oustaz taala ne ko ñëwal ñëwal nga jàpp nga jàpp ci bagage yi ñëwal nga jàpp ci liggéey bi jëli ko ñëw indi ko sam papa dem malika toog ca benn baraag ci ñoom oustaz euh, imam sàll mi toog fa ne ko daal dépasse rek laa bëgg saa boo xëyee dama yónnee dépasse rek li ci des seetal noo ko lijjantee sastale nekk ca ak boulangerie ba nekk ca ak boulangerie ba avant ñuy am at wala ñaari at sastale fay na bor yépp ba ekkatiwaat boulangerie bi mu commencé am bénéfice sam papa commencé dooga mën a ñëwaat bi mu ñëwee waaye moom comme nitu alxuraan la alxuraan la bëgg mu wax sam papa ne ko daal moom daal xelam nekkul ci ci boulangerie bi moom daal fu mu toll xelam ci alxuraan ja nekk dafa bëgg a dem daal jàngale ji alxuraan ah sam ku wax kii ki te comme xettali na ko ba pare comme defal na ko li mu bëgg ba pare mu ne ko ah du ma la du ma dagg sa mébét nag waaye nag nga toogoon fii comme ni nga ma xetlee fexe ba boulangerie bi jógaat nga toogoon fi moo ma doon gënal waaye nag comme ci yoonu yàlla nga jëm te yoon wa nga jëmkat ki leen jàngal mooy sëñ mat saxiir nee na bu ma paree ci nit ba bàyyi ko lu mu defi baax na lu neexi yàlla lu mu defi baax na waaye bu ma sañoon li gën mooy mu dem jàngale ji alxuraan li ma gënal sëñ mat saxiir loolu la daan wax te defee mu dem jàngale ji booba nag loolu lu yàgg la weesu na avant mille lu yàgg la booba ñun ñoo ngi ca daara ji ndax oustaz taala mi ba muy jógee ca daara ji di ñibbisi man ak seex oustaz seex mi ca la ñuy soog a dem daara ji boo ñu gisee da ngay yaakaar man ak moom maa topp ci moom comme ay morom waaye topp ci moom toppaatuma sax duma ma sax rakkaatam waaye ak woyefam ak bëgg bëgg ma ak bëgg njabootug du sooda moom moo tax muy doxale noonu ñëpp ñëpp jigéen ñeeg góor ñeeg ñëpp ñoom xam nañ ci dara loolu la séq ak ñoom day mel ni doomu baay ak doomu bàjjen doomu bàjjen nag doomu nijaay kon loolu hijra la hijra boobu ma defoon nag moom la ko yàlla fayewaat fii mu ñëw fii tax sampaat fi daara ji sampaat fi daara ji waaye sampalaat ko maamam comme ni ko imaam waxe ndax dëkk bi kat daara la njëkk a nekk avant muy nekk dëkk ñun njëkk a nekkee daara mooy ne ñun ñoo nga jóge ayra laaw jóge ayra laaw suñu maam Serif Baro Baro la ñu santoon Baro la ñu sant ñu ñu naan kéere Baro la sant Serif Baro moo jóge fële ci ayra laaw am doom ju ñu naan Mouhamad Kéré ànd ak moom bu ñu demee ba ci dëkki Fuuta yi teraanga yi ñu doon defal ñooña ñooña daal di leen di wax ne nit xayru yaa ngi nii nit xayru mooy yiw nit yiw yi léegi comme ñun ay tukkulóor lañ ay pulaar lañ te mënuñ baatu xa ñu ne ka ñu ne kayra waaye foofu lañ jóge Serif Baro moomo jege fa dem làmbaay am buur ba jël ko mu koy gind ci wàllu diina ak di ko bindal ba mu gaañoo doom ja euh, buur ba woo doom ji doom ji ne ko man kat mën naa laa gindi ci wàllu diina waaye yuñ doon bind yooyu am na ci yoo xam ne yeneen bi da koy tere duma ko def buur bi ne ko lépp luy tund làmbaay bu fi de bu fi bu fi tegati sa tànk ma xam nga bawal ñetti tund la tund làmbaay am na tund euh, mbulaxteen tund reefan am na ñu ciy boole tund càppi waaye ñetti tund yoo lañ ko ne léegi sama maam jooju jóge tund làmbaay daal di ñëw tund mbulaxteen daal di fay sañc keere mbulaxteen ba mu fa nekkee ñooñu ñoom mutu faak ña topp ca ginnaawam gis xombal jóge mbulaxteen ñëw xombal itam ku fekk foofa sañc nañ fa daara ñu ñëw xombal sañc fa daara bi ñu fa sañcee daara daara ji xombal di commencé xumb ñu ko sëñ aaneen sëñ aan ñu jóge fa daal ne fii xumb fii kat àndut ak yori taalibe daal di ñëw ci àll bii daal fi dagg ab got di fi jàngale samp fi daara ci waaye dañ daan def bu ñu jàngalee ba timis ñu ñibbiwaat dem ñibbi seeni kër booba daara rek la nekkul kër ba ñu demee ba gis ay làmp fii muy tàkk ak sawara sawara wuy tàkk fii ñu gis ne sëñ Kandji moom ma fi nekk di jàngale ñu dem seeti ko mu ne ñoom kat ñoo nga jógee bërëb sàngam dañoo ñëw fii pour tox ñu xam ne am nañ ay dëkkandoo ñu ne kat Seynu Mbéri la woon Seynu Mbéri sàmb ma Birima Mbéri Samb euh, maa demel Umu Jeng ma la des ma Samb làmbaay la faato ñëw jot a ñëw keere Seynu Mbéri moomu samp fi daara ji continuer di jàngale nit ñi ñëw di ko fekk si ànd ak ay doomu ndeyam ak ay doomu baayam ñu bokkal ndey ak baay Seynu Mbéri Sàmb moomu am doom ju ñuy tuddee Njol Yaasin Ndeela am doom ju ñuy tuddee euh, nu mu tuddati Mamor Kayre Mamor Kayre ak euh, papa ñoom Mambay Njol Anta Siise aywa ñu nekk ay kàng fóore mokkal di jàngale fii dëkk tund yu yëpp fii lañ daan ñëw di jàng si ku bëggaan imaam léeg-léeg korite ak tëbëki sax da ñëw fii ñu àll imaam nga dem mu dem jiite ci ñu yebal kenn Maam Kayre moomu fii la toog benn bis tëdd gént gis benn jëmm waaye jëmm ji nee na kim ko jox mooy ki fi romboon mooy Serigne Touba. mu daal di gàddaay laxasaayu dem ci Serigne Touba ba ko Serigne Touba nattoo gis ne kii am kàngam la mu téye ko nee nañ bëri na xasida boo xam ne bu ko bindee ba pare maam Mor Kéré la koy jox mu natt ko ba muy dem Sar saara kàngam yam àndaloon maam Mor ci la bokkoon fii la juddoo ci penc mi yore fi ay kàng yu bëri. waaye Mamor Kéré moomu rakkam mooy Ndiol Anta Cissé moo ko gënoon a nekk Kaam Fóore moom itam mool fi Anta Cissé bi mu fiy jógee doomam ji ñuy wax Moodu Xujja la fi bàyyi Moodu Xujja moomu moo maam Cheikh Ibrahima ñoo bokk benn lal bu ñu daan tëdd di jàng ñoo jàng na ba si ba sëñ ba gis ne moom war na koo indil ay nit dana ko sëñ bi man xam naa am kàngam moo xam ne bu ma la ko indilee dana baax ci yow jox ko fukki fas ne ko nañ war ci juróom-ñeent yi ba mu des benn bi buy ñëw na war ci benn bi. mu ñëw fekk mu muudu xujja fii nee nañ bo booba fekk na lu mat juróom fukki kaang ñu ngi ko wër ay kaang ñu mokkalal di ko jàppale ci daara ci mu ànd ak moom ne ko damaa bëgg nga am foo ma gunge ñu dem ñoom ñaar ba ñu demee ba àgg ca ndàngal ma ci garab gu mag gu nekk foofu fa lañ fekk sëñ bi mu toog ñu jébbalu fa ñeneen ñi des fi booba cene ba sax amagut li may wax nii booba cene ba soñtaguñ ko ndax ci jamono jooju nga xam ne ñooñu jóge nañ fi njolante siise moo fi des ci la sëñ cene ba jóge Samba Sadio Samba Sadio 71 la te 71 boobu noonu fekk na Mamor Kéré mi judd na bu yàgg ak njool njolante siise te seen papa moom moo sañ ci dëkk bi waaw bu ko defee noonu la continuer daara yi di continuer comme ni ko imaam waxee ñoo ñu noonu dañ fee bàyyi ay kàngam ñu bàyyi fi ay daara yu bëree bari bëri daara yooyu nag ñu dem ba ci yàgg mu xaw a giim tuuti ku jàng histoire Sénégal xam na ne lu jëm ci wàllu njàng dem nañ ba benn période njàng mi daal di xaw a arrêté li ko waral mooy ne lépp luy kajoor ak euh, nu mu tuddati kajoor ak bawal Lat Joor daf leen a sonaloon ci ay xeex ñaar fukki at ñuy xeex ba mag ñépp sonn kenn jàngeetul daanaka. loola jë la Lat Joor jóge fi mbas mu metti ñëw faagaagal mag yu bari loolu rupture boobu fi jaaroon moom moo tax lii am amoo xawoon a dagg tuuti waaye nag njàng mee ngi doon continuer mais ni mu fi meloon ba ñu naan keere laa jànge ji comme ni naan kokki laa jànge ji xawoon a wàññi ko tuuti mag ñu baax ñooñu nga xam ne xam nañ ne rupture am na ñu ne nañ jël suñu doom yi yóbbu leen kokki Baye Modou Soda sam papa moom moo daan wër di yóbbu xale yi waaye góor gum ci fëgg ne la damaa bëgg a yóbbu sa doom kokki doo ca teg baat ndax da xam ne yow yaa ko waroon a def moom mu taxawul la ko ñoom Baye Moussa Mati Baye màgget Diop fële ca Ndiobène danaan dem ba Ndiobène dem fële ca Kër Madaaro fu mu xam ne rek nit war na jóge dem kokki mu ñëw wax la ñoom Abdou Ndiaye ñële ba ñu ñëw kokki waa nit ñu doon tooñ naan équipe national dañoo bëri woon ëppoon nañ sax quinze personnes ñu dugal leen ci yaakaar naa booba ñaari deux yooyu lañ yoroon ñu dugal leen ci biir mooy deux yooyu ci lañ leen dugal booba kokki ñun ñoo nga nekk kokki mu neex lool bu ñoom ba ñëwee nag xaw naa naqare ndax dañoo xaw a bëri sam papa bu ñu masaan indil saaku cere mburu ñun dañ daan ko dañ ci daan lekk ba déwén ba ba at mi del siwaat waaye ñoom Abdou Ndiaye bi ñëwee bu saaku cere mburu bi bu ñëwee ñetti weer wala ñeent juróom-benn weer dootu ko amati ah Cheikh mi ak Abdou Ndiaye bala xam na li may wax di ñu gate nag di ñu indil pain au yoo xam ne fi mu toll nii kokki boo fa demee dañuy jàpp ne yow sa papa millionnaire la woon wala milliardaire la woon te nekk ko am na ñu ko ëppoon xaalis fuuf sax waaye nam ñu ñu daan jox ak nam ñu daan gàtte ak ñim ci doon sonne ñooñu ni mu mel moom sam papa ni la Baye màgget Diop ñoom Imaam Mor Mbeng ñoom Baye Alaaji Madamel ñoom Baye Serigne Thiénaba ñoom ñëpp noonu lañ meloon ci alxuraan loolu moo waral lii judduwaat fi daanaka Oustaz Talla moom nga xam ne moom la njëkkoon a yóbbu ca Kokki mu jox léppam alxuraan ñëw sampaat fii bi mu fi sampali itam waa dëkk bi kontaan ci lool ñoom ñëpp ànd ceeg moom dañ ciy kontaan ba bi ñuy waajal ndaje mi rek bi ñuy waajal conférence bii koo wax rek ne la man de boole naa la ci comité sàngam da ngay gis mbégte mi nekk ci xolam léeg-léeg am ku la koo ko wax nga yëg ne kii kontaan na lool sax ci liñ ko boole fii waaye léeg-léeg nga wax ko nit sax mu tegal la ci ay kàddu yoo xam ne kàdd yu kàddu yu am mbégte mooy ne ñii waxuma la dañuy jàpp ci daara jeeg dañuy wuyoog dañ dee waaye ñoom ñun ak ñoom ñoo ko bokk dañ cee jàpp ba tax na loolu ab taqdim la woon rek waaye kilifa gi lim ñu ni mooy ay sant ki ngërëm ka njëkk ci sant yooyu mooy sëriñ bu bag bi bi nga xam ne mooy sëriñu ñëpp Sénégal bu njëkk ni ñu daan jànge alquran da nga dégg ñu naan diw wàcc na juróom yoon diw wàcc na fukki yoon diw wàcc na ñetti yoon waaye sëñ Ahmad Saxir Lo mooy révolutionnaire ci wàllu alxuraan moo def benn révolution indi benn méthode jàngale boo xam ne nit ki mën naa jàng alxuraan ci ñeenti at nit ki mën naa jàng alxuraan ci ñetti at mokkal ko waxuma di ko wàcc fukki yoon sëñ Ahmad Saxir moo ñëw xamal nit ñi ne leen nit kat benn yoon kese la wala wàcc alxuraan commencé ko ci sëriñ Sàmbay commencé ko ci sëriñ sëriñ Sàmbay Euh, sëñ taala mi sëñ boobu dafa sori ci moom lool sax moo tax mu ne naa ko jiital ca cant ga cant gi waaye moom kese ameelu ko waaye képp ko yor daara rek ameel nga ko ndax bu fekkee yow ma yor daara ji jóge woo kokki ña lay jàngaleel kokki lañ jóge wala ka lay jàngaleel ka ko jàngal kokki la jóge mooy méthode bii muy jàngale méthode bi ñii di jàngale léegi léeg ñu am ay soppax ndiku dew nuñ ci def waaye cosaan la ci moom lay jóge ba léegi waaye comme ni mu ko waxee cant gi ñu ngi ci teg chef de village di suñu nijaay mooy sama turandoo moo nga ne toog moo fi toogal Baye Ousseynou Kayre Baye Ousseynou Kayre mooy sama magu yaay euh, mook sama yaay ñoo bokk papa moom la yàlla jiital ci dëkk bi waaye mu teg fa rakkam ju baax jële ñoom itam lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci moom lañuy jaar Baye Ousseynou Kayre mu fees dell ak xam-xam daanaka man am na lu may liir ci téere yi ci wàllu xam taarixu Sénégal waaye lu ëpp ci lu may wax mooy ci Baye Ousseynou kere laa koy jële saa boo àndeek nit ku man di nekk ba mu bëgg ma sa sax bu ñëwee bu ne ko diwee say maam rek dana wax ca moom Baye Jabel mi man na maa seede keroog rek lañ fa mujj di ko seeti bi ñu jaaree ca kii ba ak Abdou Ndiaye male dama ne ko kii maam Jabel lay maama mu ne ma kii maamam day li ko dale kër ma daaro cene mbaa mbay masala saa bu fi masalam miiras masaan tëj dañ naan nañ woowee maam Jabel Kayre fële ca xombal kon moom yàlla na yàlla guddal fanam waaye yal na yàlla yokk wéram waaye waa dëkk bi yëpp ah, sama nijaay ñoo ngi lay ñaan nga yóbbaale leen comme ni ma ko waxee ci commencement bi rek bu ñu wootee ñoom ñëpp ay jóg ñu ngi ne la ca ginnaaw duñ taxaw sax ban yi dañuy jóg comme waa ANSAR mën nañoo wax ne. waa dëkk bi mën nañ leen a tudde ñooy ñooy waa ansaar wallazina tabawwa'u daara wal iman ñi nga xam ne ñoo dëkke woon kër gi waaye ñun nag gàddaayuñ ndax fii lañ dëkk yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim haaja ñun gàddaayuñu sama maam mooy ma paate mbiri sàmb ma paate mbiri sàmb fële ca lambaay fële la des mook njo ma seynu mbiri sàmb ñoo bokk ndey ak baay seynu mbiri sàmb moo jur sama yaay Seynu Mbëri Sàmm moo sañ ci dëkk bi kon ci dëkk bi laa dëkk bi lañ dëkk mooy ne waaye nag dañ leen di jox garaat boobu rek garaatuk wallazina tabawwa'u daara wal imaana yàlla ba muy tagg ba mu waxee mu muhaajiruun ba pare dana nag fàttewu mu nag waa lansaar ñi nga xam ne ñoo génn seeni kër jox waa muhaajiruuna yi waaye yàlla def ñun fa am nañ fi ay kër ba pare kaa dëkk bi ñu ngi gërëm ñëpp nag bu ñu limee dañuy juum moo tax ñu ngi gërëm ñëpp ndax euh, di ci teg bàyyi Euh, yaay Adja caw moom it tam ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ndax comme ni ma leen ko wax oustaz mii kat ba ko sam papa bàyyee mu dem jàngale ji alxuraan ci loxo yaa Adja caw la ko tegoon loolu lu yàgg la booba ñun ñu ngi ca daara ja nekk xale yu ndaw di jàng man ak Cheikh ak Abdou Ndiaye mi waaye booba ba léegi day gën di rafet rek yaay doom la ko def waaye defu ko moom kese waaye képp koo xam ne bokk naa moom rek doom la lay def ba li ci mujj rek bi muy tuddee appartement yi nekk ci biir daara ji di ko tuddee ay kilifa def cee boole suñu yaay yaay Binta Kéré soxna Binta Kéré mooy yaay oustaz Talla Kéré mooy ne kon kooku boole na ko ci boppam euh, moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax sant goo xam ne amul fu mu yem ñun tuuti nañ ci sant ko nag ndax lam seq ak taala ñun lañ ca xam bariwut ndax nekkuñ fa woon ak moom daanaka ñi ngi woon kokki yàgg fa loolu jóge fa waat dem Égypte yàggaat fa lool jóge fa Égypte demaat Kaolack ñu sànniwaat ñu yàggaat fa lool fan yi passé la ñu ñibbisi lu kooku mën naa am xamuñu bëri ci moom euh, ke ci topp mooy jamiyatu rihab moom itam comme ni ko oustaz Alioune Tine waxee moo ko oustaz taala yàgg nañ lool bokk na ci ñi nga xam ne ñoom itam ay àndandooy taalaañ ñuy àndandoo di xeex lépp loo xam ne dafa aju ci développement humain lépp loo xam ne dafay dimbali doomu aadama rek di ko yokk ci loolu la ñuy yëngut ba tax na ñoom boo gisee ñii ñëw indi ak uh, aqsa terale ko oustaz taala oustaz taala ñu indil ko aqsa xol ba tooy mooy ne ñoom dañoo sori ci cause Palestine bi ñoom waa jamaayatu rehab ak oustaz taala nga xam ne ca membre la ca biir waaye uh, ñii sax laa waroon a jiital mooy jàngalekat yi ñoo xam ne ñoom ñoo waral lépp lu jiit njaaga jàngalekat yi ñooy njaaga lu jiit njaaga ñooy ñoom mooy ñi nga xam ne ñoo doon taxaw xale yi njël bu jotee aha léeg-léeg sax euh, nga yëg ne xaw naa metti lool njàngaleem alxuraan dafa metti dafa metti lool comme seex ni ko waxee ñu bari mën nañu ko mën ngaa jàngale alxuraan de waaye nekk sëriñub daara moom moo jafe nekk ca daara ci ñii nag ñoom lañu def njël subaak ngoon lépp ci xale yi lañuy nekk aha du ñu bañ ku leen gàgganti léeg-léeg oustaz taala am ak ñoom ay kàddu kaddu yu tàng jër waaye lépp ci lay defar daara ji waaye loola bu jàllee rek dañuy ñoom dañuy euh, renforcer waat seen effort pour xale yi jëkk na ngeen xam ne nag euh, du ñun kese ñoo leen yoreel cant waaye yéen waajuru ndongo itam yoreel ngeen leen cant ndax yor xale ni mu mettee defar nit ni mu mettee defar nit ni mu mettee jël nit dugal ci moom alxuraan ah kan moo kan moo bëgg malakul mawti ñëw jël sa ruux kenn bëggu ko loolu lu muy wane mooy na ruux ni mu amee importance ci nit nga jël alxuraan dugal ko ci jëmmi nit mooy nga jël ruux dugalaat ko ca jëmmi nit wa kazalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala al iman yàlla nee na yenente bi li ma dugal ci sa biir bu ko tuddee alxuraan waaye ruux laa dugalaat ci sa biir gëddundaat aw man kaana mayitan fa axyaynaahu wa jaalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas bëri na koo xam ne dafa faatu di di di dox imaam Ali waxoon nañ ko bëri na ñoo xam ne ñi ngi dox ni ci suuf waaye ñu ngi ci armeele bu yàgg bokk na ci mooy ñi nga xam ne yàlla dugalul ci seen dënn alxuraan kañ la la yàlla di dundalaat nag mooy bu jëlee ruux googu nga xam ne moom la joxoon yonent bi comme ni ko oustaz Jabel waxee ke léegi dugalaat ko ci sa biir dënn mooy dugalaat na ruux ci yow kon yow ñaari ruux ngay doxe ruuxun ala ruux kon muallim yooyu ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye di sant itam waaye juru ndongo yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax aka ñoo déggoo ak ñun maanaam léeg-léeg ñu gis loo xam ne naqari na leen ak doom ni mu soree ci xol commencé ko ci sax ca yóbbu ga nga yóbbu nit ñëw ba ci kii bi say doom di jooy laxasu la nga daal di jël xëcc ko jox jox ko jox ko sëriñ daara bi daal di waññi ko waat léeg-léeg nag am nañu seen xol tooy ah, léeg-léeg nga am ci ñoo xam ne rongoñe dana tuuru tuuti waaye rongoñe bu tuuroo itam dañuy xam ne euh, lu mënta ñàkk la waaye moom muñ na comme bàyyi na ko fi rek waaye itam léeg-léeg mu ñëw fekk fi lu ko naqari muñ ko léeg-léeg mu wax ko ñu expliqué ko mu muñ ko waaye léeg-léeg mu bañ koo wax itam muñ ko kon ñoo ngi leen di sant ci loolu bu baax a baax. bu dul woon ak ñun duñ toola duñ talateeg fii di jàngale waaye ñi nga xam ne ñoo doon dimbalante ak ñun te jàngalekat yi jiitu ci jigéen ñi nga xam ne ñooy taxawu daara ji jiitu ci ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax bëgg daara ji foo toll foo ñëw foo foo ñëwee daanaka day day set léeg-léeg nit ñëw visite sax xelam nekk ci ne ah est-ce que du ñuy li ma ñëw visite moo tax ñu bale ko waaye yàlla xam na ne ñoom. chaque jour ñaari yoon lañ koy lañ koy bale saa boo ñëwee da ngay fekk mu set wecc ndax léeg-léeg nit ñëw bettuñu fi kon ngi leen di sant bu baax a baax waaye di sant ñi xam ne ñoo àndoon ak ci organisation bii dale ko ñi nga xam ne ñoo doon taxaw xale yi démb ñuy tari te oustaz Baye Jabel Kayre jiite woon leen ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye ñoo dem ba jeexal te tudd ñii nag ah ndax ñii ci mbirum lañ bokk mën nañ leen bañ a tudd sax ndax ñoom danga xam si bokk mooy Abdoulaye Kanji nga xam ne moom avant daara ji taxaw la ci commencé woon ca pàkk ya fan la ñuy def pàkk bi bu buñ nee pàkk bi kii moo ko moom nee na mu ne naa ko jox sama pàkk ñu weccoo foofu la tàmbalee ba léegi nii ba bi ñuy jàpp conférence ba ba tey moom loxoom jógu ci ak euh, Abdou Ndiaye Diop mu le nga xam ne moom itam du jóg ci daara ji sa Cheikh Kayre nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu xam-xam académie moom it itam da ciy jàpp bu baax a baax a baax waaye sax léeg-léeg bu bayee soble ba pare ba soble sa ñor mu jël ca lu takku daal di yónnee daara ci ba yàggut loola niki noonu itam euh, euh, sukkay na moom itam duñ ko mën a ñàkk gërëm sukkay na moom itam jigéen la koo xam ne jigéenu sa Taala la moom itam daara ji euh, moom daal ci ñun la bokk sax moom itam dafa mujj gi bokk ci ñun ndax ñun dañuy defar ay mburu du ko yóbbu fële ca kokki ba mu ko yëgee moom itam dafa ñëw dugg ci groupe bi bokk ci ñun bu ñu waree participer mu participer bu korite jotee wala tabaski tabaski sax du fekk xale waaye korite bu jotee damay dafa may jox ñaari somme benn somme bi mu ne jënd ci nag pour waa kokki waaye benn somme bi nga jënd ci quelque xar pour waa daara ji lu ñuy lijjanti bi ñuy lijjantil daara ji oto itam ñu dem ba ci yàgg somme ba oto ba ñuy jënd mu xaw a manqué mu yëg ko mu daal di naa ko mott mottali ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moom mi ngi koy def moom daal dafa bokk ci ñun kon ñu ngi koy sant bu baax itam di ko gërëm waaye di sant Ibrahima Kéré mi nga xam ne moom itam ci wàllu communication bi jàpp na ci bu baax a baax a baax bu ñu soxlaa dara ci wàllu yëg yëgle loolu it ma ngi ko tàmbalee ca ba ñuy inauguré daara ci defal ñu ko ci mucc ayib boo koy jéemee naa ko di ko jéem a xaw a laaj mu ne déedéet déedéet moom ci mbir mi la bokk waaye moom itam ci waa dëkk bi ci la bokk waaye duñu fa je aussi Euh, Mor Kayre Mële suñu doom la waaye tam xale la boo xam ne ay loxoom dafa set moo tax mu mag xale yi macha allah lépp lu ngeen fi gis ci lu rafet ci wàllu image ci wàllu luy doxal ndaje mi rek ci loxoom la jaar daanaka dala ciy soññ sax yow léeg-léeg nga xaw a nekk ci yeneen yitte mais moom moo la ciy soññ pour def ko bu ko defee ba pare nga bëgg a ekkati mu ne déedéet déedéet da koy def ngir yàlla alxuraan la koy defal moom yàlla na ko alxuraan taxaw fa àgg ci am njàngam macha allah mi ngi ci yoon wi di jàng. Euh, yàlla nag ko fa yàlla àggale projet yi mu sumb itam yàlla nag ko yàlla àggale waaye duñ fa jógee te sant ñu itam euh, waa daaray Koki TV waa daaray Koki TV itam ci ñun lañ bokk ba ñu santee sëñ ma saxir rek booba la jàll waaye nag yàlla dafa def ñu ñuy booleek koo xam ne moom saa bu fi ñëwee moom day ñëw jàppale ci liggéey bi lépp loo xam ne léeg-léeg ñu dem ba càng sax ndax moom yàlla daa def mu xaw a xereñ tuuti bu ñu demee ba càng moom mooy ñëw mottali ñu Euh, xam naa ne waxtu wi naj nañu waaye am nañu bëri ñoo xam ne bëggoon naa tudd seen tur ndax jàpp gu ñuy jàpp ci daara ji waaye ku ma tudd sa tur rek na jàpp ne yàlla xam na yàlla na la yàlla fay gën ji fay yàlla na la alxuraan teeru yàlla na la yàlla boole ca waajuru ndongo yi bu ngeen gisee nag comme ni ñu defee décor bii ñu ko defee nii mooy ne ñun dañuy nuru nuru lu alxuraan dañuy nuru nuru lu mag ñi am na ku ñuy wax Hamza Azzayaat ci jàngkatu xam-xam yu mag yi lañ Hamza Az-Zayyat la tudd lu tax ñu tuddee ko Hamza Az-Zayyat alquran ji ba muy soog wàcc amul tomb amul maas ba mu ñëwee di jàng alif laam miim zalika alkitaabu laa royba fiihi laa royba fiihi amul tomb raa doo xam zaay la doo xam leneen la mu jàng alif laam miim zalika alkitaabu laa zayta fiihi te santeeg mu sant siise wala mu sant loo te xelam nekk ci diw mu ne alif diw mooy zeyt bokkut ak laa rayba fii ñu tuddee ko xam sa zeyaat waaye tur woowu moo ko yóbboo ba mokk ci juróom-ñaar ñi ñuy tudd ne ñoo jàkka jàng alquran ba ñu tuddee leen sax am njàngin njànginu Hamza am na Hamza moomu da daan nuru nurulu yàlla ci ni muy terale ahlul quran léeg-léeg sax mu nettali ak gént gént ko dafa gudd waaye daal moom lañuy toppandoo yàlla ni mu terale alquran waaye da cee boole waale waajur ya fa yaa ayuha alqaari bihi mutamassika mujillan lahu fi kulli xaalin mubajjila hani'an mari'an walidaaka alayhima malabisu anwaarin min attaaji walxula ba mu demee bay jeexal fama zannukum binnajli inda jazaihi ulaika ahlul yéen ñi nga xam ne yéen a yóbbu seen doom ci alxuraan ba mokkal bu ñu demee alxuraan bu ñu demee yowmal xiyaam ñëpp dañuy daw seeni waajur yowma yafirru lmaru min axihi wa ummihi wa abi ñëpp dañuy daw ba mu des yéen yéen da di wër seeni waajur pour teral leen yenente bi moo ko wax daan ne ñi mokkal alxuraan dañuy wër seeni waajur tegal leen ay mbaxanay leer te solal leen mbubbi leer bu ko defee ña nga xam ne amuñ ca nekk ci lëndëm di leen yuuxu naa leen naa unzuruna naqtabis min nuurikum ñu leen déedéet léegi kenn du ko jële fii de qiila irji'u waraakum faltamisu nuura fa duriba baynahum bi suur waxtu bi jot na waaye alxuraan moom boo ciy bëgg a wax daanaka géej la goo xam ne boo ci tànk boo ci tànk doo ma doo ma sa jeexal day mel ne dangaa sëpp sa baaram rek ci géej kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax waaye di ndokkeelaat xale yi nga xam ne ñoom ñoo mokkal alxuraan yàlla def dañ ñëw di leen jël ndànk-ndànk waaye balaa leen di jël da ngeen di jaar fële ngeen fay weer wi ba pare ndax suñu jàngalekat yi kat fayeguñ leen ak suñu liggéeykat yi ak lenn ci li doxal ndaje bi macha allah fa tabaarakallah xam naa jëf jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah gudd jëf jéere ah. moo tax cant gi gudd tabaarakallah bu ko defee dañuy dem ci li def ci programme bi muy xale yi jàng xatmul quran bi daal di ñaan Cheikh Tidiane Kayre Cheikh Tidiane joxal joxal ma Cheikh Tidiane waaw balaa jàng bu pare yëfi si si si jigéen ñi dugg ci biir góor ñi des ci baas bi jigéen ñi mën nañ dem ci baas bi ci biir daara ji góor ñi def defee ñu def yëfi siiseeg kànji yi incha allah bisimilah ñu jàng xatmul quran hmm? si Cheikh fayal foofu sa bos waj'alhu lana imaman wa nuran wa اللهم ذكرنا منه ما نسينا لنا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فادح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير العلم ونسألك العلا من الجنة ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم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 أي استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أي اللهم ثبت أقدامهم اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم واحفظهم جميعا يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم عليك بالصائنة ومن عاونهم اللهم عليك ilayka bihim fa innahum la yu'jizunak allahumma ahlikhum adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim amin ya rabbal alamin hasbunallahu wa ni'mal wakil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 لقد عصوا أشهد أن محمد bismillaahi ñu julli jàkka ji ku bëgg yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran ngi seetaan daara Koki TV